benn matériel daal génn. Euh, waaw am nañu ci gars yi mooy góor borom kër gi nekkoon ci kaw mais mujj nañu ko évacué parce que avant bâtiment bi lépp dañ daan boobu fekk na gars yi dañ ko sàpp ñëw nañ jël parce que yëkkati nañ ko bu sëkk ñu jëlee